88 euh, la 628 98 98 coowal suufu bi ci mujj mooy ba am ca jas ak jàppante yu tar ba ca am tey ji maire ba yëkkati na ci kàddu waaye itam euh, wàllu situation économique bi ak corruption ba mu àndal euh, Covid bi ak bàyyeeku bi itam ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam yaa bi. ñu ngi lay fay waa. ok. Mm-hmm. Uh, maa ngi jëkkee ci affaire suuf si uh, li wolof di wax daal bu jinne bëggee da xaar yëg daan suuf bu fekkee état mm-hmm. ba bala ñuy état moom bu soxlaa bu soxlaa mm-hmm. mooy askan wi ñoo ko moom askan wi yëpp ñoo ko bokk bu fekkee dañ koy def loo xam ne farata la farata la dañ bàyyi ñu doxal ko dañ bàyyi seen affaire caaxaan yii di di di yëngu ay fitna nañu xool ba xam bu fekkee ne ab jàmbur la bu jógee ci àll ba ok kooku mën nañ cee wax uh-huh. waaye bu fekkee ne ak état moo ko soxla pour defar hôpital wala defar leneen loo xam na ni ci askan wi la jëm uh-huh. bu jëne bi ngay dexaar ku yéeg daal uh-huh. bu dee ci affaire li ñuy wax ci ndóol beeg yooyu moom loolu bi adduna bi yëpp fu nekk mu am ay problème yu mel noonu nañu sant yàlla parce que yàlla ngi defal si turu sax parce yàlla mënoon na fay gën a ñaaw mënoon na gën a métti waaye nañ ñaan yàlla yàlla mi dara tawut mu bettee ko ñu ay xéwal ba loolu yëpp jàll. incha allahu taala. Hmm. waaye buñ ci bëggee affaire politique politicien moom. Hmm. du sotti dañu xam ne àdduna bi yëpp ñoo jànkoonteeg jamono na na meloon te yàgg na bokkut ak léegi. parce que hmm. corona bi soppi na ci àdduna bi lu bëree bëree bëree bëri bëri. wax dëgg yàlla li ñuy coow nii di wax ni Sénégal ah, wax dëgg yàlla li ko yàlla baaxale li ko yàlla jagleel daal bëri na ay ci ci ay sutura daal kon nañ sant yàlla yàlla dolli sutura rek oh. incha allah dina mën a ga naaw na dina mës a oh. yi neex a ci topp incha allah taala oh. dañu góorgóorlu rek te muñ xam ne yàlla moo yor naataange moo yor kii du du keneen amul kenn koo xam ne yow yaa yor yaa yor développement wala wërsëg jaam yàlla yi wala yàlla moo yor xéewal yi dañ ñaan yàlla yàlla du bette ko ñu xéewal yu bëree bëri rek loolu moo ci moo ci gën a am solo dañu moytu mbas xam ne ñu ngi ci demaguñ kenn la demaguñ Mm. fii semaine bële passé rek junniy nit ak nangam ñoo ci faatu waaw junniy nit ak nangam ci semaine waaw kon nag nañu xam ne ñun yàlla defal nañu yàlla yàlla dool ci boobu. Mm. jàmm salaam. jërëjëf ok euh, jaajëfal ko Pape Laye kon ñu xaar beneen auditeur ci ligne bi ñu daal di koy nag euh, jël 097 74 00 mën ngeen faa jaar 77 097 74 00 allo allo. allo waaw. waaw sëñ bi. waaw. waaw yow la déglu. waaw Mor wax na ñaan la. allo. allo waaw. waaw yëkkatil kàddu gi tuuti. waaw Mor wax na ñaan la. waaw. waaw bi de man xam naa dama bëggoon a dugg ci wàllu mbay mi rek en tant que waaw. dañu bëggoon daal wax dëgg yàlla engrais bi moom. Hmm. lajj na lool lool lool lool lool lool léegi nag li ñu bëggoon hmm. mooy daal wax dëgg yàlla hmm. comme jiw bi melut na war a mel engrais bi melut na war a mel hmm. mooy système commercial bi njaay mi ci boppam déglu leen directeur général bi muy Modou Diagne Fada affaire Sonacos bi muy bàyyi xel pour naan nañ leen def beral loxo ñun gannaaw yàlla am na mbokk mu ko amul Ibrahima Badiane nawet bi ci boppam yàlla taw na ndoxam barkeel ko li ci bari ñu ngi ko jëlee Gàmbi am noonu ci engrais bi léegi nag kon bu mu sotti ñuy rafet ay galgal président ci boppam am na ñoo dañ ko bëgg a yàqal mais li xew fii su ma la ko waxoon tey fii ci ñeen maa ngi xoote fii ci ñeen ci Saalum fu ñeex su commune Saañar amu ci benn benn benn benn borom kër goo xam ne gii mën nga wax ne ah, am nga cent kilo gerte cinquante kilo gerte dayut kenn amul kenn koo xam ne am nga cinquante kilo gerte hmm. engrais bi laa même chose noonu la manqué hmm. buñ toog ba léegi ñuy roofal ay galgal naan Sonacos war nañ ko soraale pour dugal yooyu nañ bàyyi si gerte gi ñu jaay ko chinois yi ku am loo jaay baax na engrais boo waxtu jotee bu mën a jaay jaay baax na bu mën di jaay kenn ku ne seet moo def hmm. mais li ñu exploité nag dañ war a wàcc ci tere bi yebal sa ay ndaw ñu seetlu xew hmm. yëf yi ci boppam doxul na war a doxee doxul hmm. président def na li war a génn na ay moyens ay chiffres ay milliards mais dara ah, ah, mu ngoog euh, wàllu mbéy mënuñu ko génne ci coowal suuf ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko Pape Laye allo. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw. ñu ngi lay delloo ziar bu baax El Hadj Malick Adama Adama suuf si daal suuf si daal xam naa ne ñi fi dëkk ñi fi seen i maama seen i maama ak juddoo woon am nañ problème ñoom. Hmm. ah Adama yow bu fekkee ñaar téeméeri at ñett téeméeri am ngeen ko fi ngeen dëkk say maama say mamaat ñoo fi nekkoon. Hmm. te ñoom ñaari hectare yu am kayit dong mënuñoo fexe ba am ko ci Sénégal. fekk hmm. kenn koo xam ne juróom fukki at sax amagu ko ñu tàllal ay kayit wan leen ne maamoom lii lépp bopp kenn xamul. réew mi war nañoo xool aadama ni ñu koy doxalewaat bala laa naqare jàpp nañ nga ñëw ñu naan la domaine national man ban domaine national hmm. aéroport bi li mu jël foofu rek doxal na ay dëkk boo demee sax laal na ay armée la hmm. ñoom waxuñu defuñu dara lañ dese akas néew yaa ko yéen nañ leen fa dëkkal te bu ñu amee leneen lu ñeer ñu def defi ko feneen hmm. ñu dem defi ko feneen gis nga gis nga ndóol gi ñu wax aadama senegal ndóol gi day yokk mais du wàññeeku day yokk mais du wàññi ko xam nga lu tax. lu tax suuf saa ngi nii foo jëm ñu nangu. Hmm. foo dëkk ñu doxal la fa nangu suuf sa ngeen bayoon. ana fooy bayee kenn dootu bay. Hmm. ñi am ñi am fu dëkk kës néew lu ñu yeew ñu sàcc ko. Hmm. foo gi àll bi boo demee dara amul. dara dara dara amul. bu ñu lelee ndóol gi day wàññi ko amul day yokk day mbay maa ngi nii dégg nga waa ji génn léegi li mu wax. ci engrais bi. te ñoom ñu ngi wër naan def nañ nii def nañ ñi. Eh. ñun suñ dëkk ya boo demee jiwu ña nga la jox bopp bu nekk ay ñetti kilo ñeenti kilo loolu bay la loolu aw jiwu la eh. engrais moom waxaale wuñ hmm. ba pare ñu li bay non non non Adama Adama dëgg dëgg nag Sénégalais itam liñ nangu dafa yomb nga eh. dem ñu commencé ana ana ma soxna kan ana kii ndaw ana kële bañ a jógal seen bopp hmm. fan leen jëm Adama daal gis nga Sénégal gi jëm wallaay àggagul te deli bi maanduwul mu ngoog euh, ñu xaar keneen Pape dafa mel ni am na ko ne ci ligne bi ñu daal di koy jël allo. allo oustaz Adama. waaw. da nga def sa waa booy Malika. waaw ñu ngi lay nuy ak waa Malika. sa ci nu mu tuuti Malick Sall de. Mhm. li ma koy bëgg waxal mooy réew mi xamul fu mu jëm. Mhm. tànk ginnaaw rek. Mhm. la maam Cheikh waxoon daal dara du ci dëj tànk ginnaaw rek. bon ci des mu ñëw ci affaire suuf si. bon affaire suuf si man damay ñëw au niveau de Malika. Mhm. Malika damaa waxoon ni depuis bi nga xamee ni nee ni seen mandat jeex na dañoo waroon a délégation spéciale. Mhm. délégation spéciale Malika dama ko yàgg demander à ce qui concerne les titres fonciers. Mhm. Adama. waaw Malika suuf si fi nekkoon yëpp la commune bazardé na ko jaay na ko ay nit yoo xam ni borom mi doole fi nekk ñu ñoo accaparé suuf si. déjà am na ñoo xam ne ñu nekk ci commune ñoo xam ne déjà poursuite judiciaire bi commencé na am na ñoo xam ne ñuy paraît-il dégg naa tey nañ leen hmm. te le maire en personne Momar Talla Gadio bi je le cite il a son à la section de recherche en en ce qui concerne le problème foncier newoon hmm. naa Macky Sall nag mu ñëw def délégation spéciale ñu jéem a saytoo affaire foncier ci Malick hmm. parce que moom dafa dafa transhumé moo tax gars yi bàyyi ko moo tax mu dossier am foofu parce que il n'est pas de l'APR c'est un PDS bi mu ñëwee ba bazarde suuf si gars ñëw takkal ko ay ay pot ci la ko soog a transmettre dem APR pour mu mën a sauver loolu taxul mu génn ci mais suuf ci boppam yàq na ko yaxee complètement bazarde na suuf si fii ba jàllo ba dafa am yëpp li fi si ay fauteuil yoo xam ne gars bëgg a tabax mënuñoo fexe ba tabax seen i kër te loolu lépp ay borom yi doole ñoo ñëw jaay ko mu bazarde leen ko parce que yoo xam ñoom ci seen wàll borom mi doole yi li ñuy ñëw signé leen ay këyit te da gis ay terrain yoo xam ne ay doublon lay am da ngay gis ñu jaay ko ki nit jaayaat ko ñaar wala ñett nit encore te yooyu yëpp gars yi dañ ko war a seetaat litige foncier bi am Malika Macky Sall ni xam ne kii kii fi nekk nii nekkalu ko fi. ok euh, jërëjëf loolu di jàngatam sëñ boobu woote ca Malika euh, Pape keneen alo waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu Babacar. ñu ngi siyaare bu wér di siyaare Baye Omar Gueye moom Papa Laay moom nga boole bokk liggéey waaw ñaan rajo bi dem ba nekk ay télé waaw waaw bëggoon bopp ci débat bi aywa yoo la ñuy déglu waaw li may wax rek ci suuf si euh, lu ci meer yi lépp président Macky Sall moo nekk ci ginnaaw hmm. waaw te maire yi seen mandat jeex na ñu ràmpale ko jeexati mu jeexati